général xëy na installé gul tey yow mi nga xamante ni yàgg nga fa ñaata at nga fa def à peu près. dem dëkk 2001 laa fa ñëw. bokk naa si ñu si gën a ancien. d' accord maanaam koy créé bu ñu defee 4 mois cinq mois si laa ñëw Dakar. d' accord léegi tey soo ñu doon defal un peu le bilan de l' ancien wala boog de l' ex directeur euh, Ousmane Sylla. Mm-hmm. Euh, ci lu positif ak ci lu négatif. ci tënk rek lan lay doon. bon si lu positif parce que aussi dañuy xam ne Ousmane Sylla bu mu ñëwee au niveau de Dakar daf fi fekk une une boîte en difficulté c'est une réalité ñëpp nangu ko mais maanaam boîte en difficulté mooy boo amul kaar dem dikk boo amul kaar du mën relancer wu su lu bëri du ko mën def fekk fi ay bor parce que l'ex avant moom muy ñëw Omar bun Xattab si la moo fi nekkoon. wala seetloo sax ñu jàkkaarloo ak moom ci combat yu bëree bëri daanaka sax nee nañu bu mu fiy jógee sax suñu loxo jógu si syndicat yi n'est-ce pas donc ay problème fi bàyyi Ousmane Souleye mu ñëwee ay problème fekk def na ay efforts yu bëri. loolu ñëpp mën nañ ko ak ay recrutement politique. école yu bari par rapport par rapport ak dette sociale yi. effort yu bari def na ko si. waxtaan aussi ak partenaires sociaux nekkoon na lu am. chaque fois ñun fu ñu ko bëggee dañoo toog ñu waxtaan ak moom. réunion mensuelle collège délégué du personnel ak ak direction générale aussi da doon am de façon normale maanaam discussion yi mi ngi doon am Dakar dem dikk yu bari bari donc maanaam effort yi am na si côté mhm. aussi am na. même ba yi nga xam ne aussi état defoon na ko. def na si ay effort ba ñu yokk pourcentage yi foofu. donte bariwul la ah. mhm. parce que yëpp yoo xam ne tey ñun en syndicat dañ ko war a porter parce que dem metti pour les travailleurs les salaires tellement bas nit ñi dañoo sonn loolu c'est des combats yoo xam ne aussi dañ pour ñuy yokk aussi salaire liggéey parce que pouvoir d'achat day yokk fois. Mhm. loolu c'est important donc pour mhm. la fenn la rek mooy si organisation entreprise foofu la yéexee. foofu la ñuy mais nee nañ dafay recrutement politique organisation entreprise bi. mais nee nañ dafay recrutement politique loolu aussi. boole ko recrutement politique nee naa la sànq nga dégg man j'assume ce que je dis. Mhm. nee naa lu koy dindi. mooy la signature de l'accord d'établissement. waaw mais amu moom def na ko. si bilan recrutement donc recrutement la ñu wax xam nga boo ne recrutement politique il faut ñu relativiser ko c'est-à-dire c'est quoi man damay wax dëgg ah bilan bilan la ñuy wax. bilan je parle de bilan bilan de façon globale laa la wax. même le déficit déficit bi nga xam ne dem dikk amoon na ko mu fi ñëw réduire nañ ko. Mhm. du déficit financier. Mhm. bu baax a baax pratiquement de trente milliards à à à pratiquement douze dix milliards donc c'est-à-dire liggéey na man def faire na les choses qu'il peut faire. affaire bi avance bi yàqul bokk yàq ba nga ne tax na ñu remettre en cause la mhm. pérennité de la Cameroun yàlla moo tax may waxtu lu may wax ni aussi liggéeykat yi xam nañu ko fu mu pêché wax nañu ko mais peut fu mu waroon gën a jàppale liggéeykat yi socialement socialement peut-être foofu moo des ak nu ñu doon organiser bi nu ñu waroon organiser entreprise bi ba nga xam ne entreprise bi par exemple dina commencer relancer wu peut être si loolu la nekkoon peut être il n'a pas eu le temps parce que aussi quoi aussi entreprise dafa fokk yi dul jeex da ngay lii def ndànk-ndànk. mais fu mu ko xaaree peut être socialement. peut être nu waroon taxawoo. mun nañ na foofu organisation entreprise aussi xaw yéex na si. parce que tey waroon na ko mën a def ba ñu dem dikk aussi commencé relancer dès lors que jot nañu ay bees rek je pense que waroon dem vers l' de l'